Laisse voir war ci système boobu parce que nous prenons la suppression de la liste nationale Yo mi nekkoon euh, am ci expérience ci walu wi euh, comment faire aujourd'hui pour avoir justement pour être simple une assemblée de rupture xam nga assemblée de rupture mom ak gouvernement de rupture ministre dama ko tek

Hmm. assemblée nationale mo teug que capitale bi nek Dakar est ce que est ce que mënoon tok ndar tay hmm way laaj mo teug collectivité locale. mo hmm. teug leneen mo teug leneen mo teug université yi nga ñuy jànge ji. mo hmm. teug bourse budget yi égal mo teug radio yi bari ni ba ngay liggéey hmm ak code yi ñuy àtte ah, mu nonu donc bok ah, as xëñ na kenn neewul dagalé lépp waye ah, motax motax sopi lu bari bok ok d'accord na motax ñun ñu tuddu sopi hmm changer les choses dans la bonne direction. Mm. mais euh, il y a donc il faut que nous donc dañuy mm. que liste nationale bonul. bonne mm-hmm. tax bonul. dañ doon élection moi am 60 députés ou 80 parce que foofu lañ toll woon yaa il n'y a que 200 000 votants 200 000 ont voté. mu am ñaari parti par que mën naa am benn at boo xam ne ñetti parti am 1959 kenn am cinq pour cent kenn am vingt cinq pour cent kenn am trente pour cent ki moom 45 pour cent jël 90 depuis ñeneen ñi toog te 45 cinq 55. mooy mooy raw gàddu wala. Oh, kañ wala boog nga am 400 votants 400. qui a 201 voix, qui a 199. Nous avons fait tout. Nous avons que 59, 60, 63. Ils avons fait Mais Est-ce que nous avons fait ça, Je crois. Les premières élections en 1959, Chartiane a eu pratiquement 13% de l'électorat et député. mais c'est à partir bu fekkee ne da nga bëgg ouverture démocratique ouverture démocratique moy da ngay am une représentation nationale bo xamné bi da fay épuiser mu am une pluralité mais lolu il faut que chaque at nga tabax ko mm-hmm. am assemblée sa yoo xam dañ ko tabax ba nga xamné amna am xamné duñu voter manam amna ñu peuple Bassari bu nek gannaaw Kédougou mm-hmm. les teg xawma li lii te xamuñu ñu tudd mais ñoom mësuñu am sax ku ku nek instituteur wala dara ah le mhm. conseil municipal ils sont dans reculé très mhm. dans la forêt mhm. mais ñooñu fait un ci yenn qui yi dañuy wax la représentation minoritaire dañ un tànn kenn pour mu Je ne ci histoire si l'histoire de nii wala li may seet bariwul mais dafa daal daal man kenn laa xam ci dans le des Mancagnans hein, qui sont administrateurs civils exceptionnels ay ay ay officiers de marine ay officiers militaires ay officiers d'aviation ay grands administrateurs mais parlementaire parlementaires la ci hmm. donc faire représenter les minorités ci assemblée. li koy permettre du façon mais l'état de assemblée en 78 ñu am député parce que dañuy modifier texte bi. Hmm. def que dans la majoritaire. Hmm. elle est devenue proportionnelle. la législation était proportionnelle nous avons 17 députés de l'assemblée nationale. Ah oui. mais bu le système bi amoon la avant. les mhm. lay wane donc l'évolution démocratique mhm. de faire pousser à des à des révolutions parlementaires. absolument dire pousser à des révolutions dans la gestion et la transparence du pays. absolument total donc nous ñu jàpp pas maintenant euh, les dafa mel nañu ne que l'église nationale il yenn saa attention Il ah, xam ki nekk ci kanam de do xam té de liste bi mën ko ko bañ xam ah. hmm. mais ci biir. Hmm. sa ndijaay mu ngi ci wala sa tante. Hmm. waaw ci biir liste bi ah, donc da fay nek non seulement liste nationale. mais da fay nek liste xaritoo. après kooku justifier sa vote. waaw kooku justifier sa vote. donc mais fi ñuy jëm léegi te ñu mel ni mom la nit ñi bëgg moy nit ñi day bëgg ki ñi voter ñu xam ni diw la donc dañu bëgg ñu dem sur ben scrutin uninominal. gis nga loolu ñun boo demee suy sunu. programme suñu pro. kii de ma législature suñu règlement intérieur. Ah, bu PDS. ci investiture yi depuis 1974 prévoir nañ fa bu ñu amee scrutin uninominal naka la ñu leen di fale ñun ci suñu biir parti ñu leen di tànne moonte bu amoon tey tey de ñun duñu changé suñu règlement intérieur xam nga loolu mais boo ko laajee ñiy diriger parti bi am na ñu la ko dul wax parce que xamuñu ko parce que xale yi xamatuñu règlement parti sur le parti ñun dafa faut prévoir la déclaration de fortune congrès bi moo la demander a demandé a yow candidat présidentiel waxuñu ñaata nga am. ah oui oui. avant même l'élection hein? waaw mu ngi ci depuis 1974 lors moo tax ñu def ci constitution bi c'est-à-dire que nous, nous nous rek xeex toj nous daw fii donc mm-hmm. dañuy réfléchir ay at bind waxtaane def ay conseil nangam nangam ba ëgg si donc ñun lolu yeen une longévité dans l'opposition mo leen ko may ah, bien sûr. Ah oui, parce que le travail dans l'opposition forme. Oui, mhm, Effectivement. Le lay former gang, former le xam former le taxi former le de institut de formation lycée fii. Mhm. école du parti. sommes une école du parti étudier nous, étudiants 15 mhm. jours après la loi sur le domaine national euh, Abdoulaye Matar Diop d'ailleurs 1964 waaw ah, non bi 1964 2012. ah ouais